seet seen YouTube bi 4appuis TV partout dans le monde fi Sénégalais nekk de seetaan 4appuis ñu leen nuyu bu baax di la ziar la foo mën ne si àdduna bi moo xam France Maroc États-Unis Espagne fépp rek fi Sénégalais nekk di suivre 4appuis ñu leen nuyu bu baax di la ziar tey nag ñu ngi Colobane seet si fi euh, Mbaye Ndewane Père Mbaye Ndewane ah, nekk coach Bawol Mbooloo di entraîneur Tapha Tine tey ñu seet si woon ko fii Colobane fas yéene waxtaan ak moom ci lamb mhm. waxtaan ak moom aussi tamit ci euh, tolluwaayu làmb ak équipe équipe Bawol Mbooloo ginnaaw bi ko nuyoo ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu 64 appui ñu dugg si waxtaan bi Père Mbaye naa la bu baax. maa ngi lay dellu ziar. auzu billaahi mina seytaani bismillaahi rahmaani rahiim. noo ngi nuyu 4 appui TV nuyu Sénégal yëpp di nuyu région Diourbel département Bambey arrondissement Lambaye comité Réfane gi ma dëkk. Mhm. rawat na Réfane Thiola di nuyu ñëpp di ziar Sénégal yëpp. Mhm. di ñaan. mbas ni yàlla jeexal ko fi ak jam bu ñëpp delluwaat si seen ay activité di sant sama sëriñ nag Cheikh Ahmad Mbacke gaawaan maa ngi koy nuyu di ko siyaar bu baax parce que suñ gaawaan bu baax macha allah depuis ñaari ngi nii yaa ngi nekk coach mhm. équipe Bawol Mbooloo waaye depuis ngi nii yaa ngi nekk coach foofu waa coach Bawol Mbooloo maa ko sanc ndax 2008 euh, lañ ko sanc ba léegi bi ma njëkkee maa ngi won nekkoon coach écurie Bawol mhm. après bi ñu fi jógee la def écurie la saj écurie Bawol mbooloo mhm. ànd ci ak Tapha Tine mhm. ànd ak Ibrahim Dé ànd ak Boy Dieye ànd ak Ibra Diagne muy sama adjoint ànd ak Ablaye Gueye ak Daouda Ngom ñooñu laa ci àndaloon ngeen sànc ko waaw Tapha Tine nan la ci écurie bi waaw ah, moom bëre wax dëgg yàlla daf ko doon ndax ci maamam la ko donee mhm. maamam moo doon bëre baayam di bëre mu agsi ci moom mu bëre mais tabaati ni mu ni mu ñëwee écrit bawol comme dëkk ba la nekkoon mhm. di bëre ay ay ay mbapat yu ndaw nii ah bi mu ñëwee bi mu ñëwee Dakar mhm. bi muy ñëw Dakar sax bëre indiwu ko woon waaye nag comme dafa nekkoon apprenti di di jàng dawal si nijaayam. ah bi mu bi mu am permis euh, mu nekk rirafinel ci ku ñuy wax alaaji Kebe nekk foofa dafa liggéey dafa liggéey di da ba mu yàgg muy may ñëw benn suur fekk ko fa mu nekk ci liggéey bi di liggéey ma ne ko bu ngoonee na nga ñëw entraînement bu ma ko waxee loolu sax dafa daf ma ne ah paa bi daf koy daf koy tere papaam daf koy tere ma ne ko loolu du ma ne ko loolu du du sama wax paa sama wax ak moom la yow ñëwal rek mais yàlla dimbali nu ji dem paa bi ma ñëwee bi ma ko waxee dal ma ne nee ko bokku ci caaxaan bokku ci ñàkk fayda bu ci defee ay caaxaan wala ay tàppale dana tikki ngemam te kenn mu ci mën dara waaye nag su ko jaral su ko jaralee ba mu am ci fulaak fayda lu mu laaj rek dinañ ko ci def xabam loolu la tontu loolu la ma tontu waaw après nag su ngoon si la Moustapha commencé ñëw écrit hmm. Bawol mu commencé fa ñu di entraîné commencé entraîné waaw boobu mu nga fekk euh, magam maam Góor Diouf hmm. ak Birahim Deñ boobu mu ñëwee ñooñu fa la leen fekk hmm. waaw waaw après bi mu commencé nag entraîner. comme macha allah. amul woon yaram boobu mais. yàlla may na ko taxawaay. te amoon na xelum bëre. a ah, mu nekk foofu. commencé. su mbappat amee Medina. Fass Ngoltawé fu mbapat am rek. mu dal fay dem. fu mbapat am rek. mu dem foo commencé di bëre di bëre di bëre. yàlla dogal. ñu dem ngaay Fallou Ngom du fa bëree grand combat ak Babacar Diallo bu Faas waaw keroog la Moustapha jëkk a bëre door foofa boobu la njëkk a waaw ngaay la jëkk a bëre door ñu tegal ko fa jóoni jóoni ci sensé waaw mu dal di jël waa ji benn mbër bu dëkk Faas mu jël ko ko mu daan ko Pandour sax moo ko moo moo nekkoon menager bi temps moo ko moo ko doon liggéeyanti ko xaalis mhm. noonu la fa demee ci waaw ok léegi moom mhm. ban combat nga mas a nga ko mas a yóbbu mu bëre. Mhm. nga xool ko nga xam ne ci nañ ko jekko nañ ko tey. waaw xam nga làmb moom dañ lay jékku waaye lu ma gëm mooy combat moom ak Balla moom dañu ko jékku woon wax dëgg yàlla carrément boobu dañu ko jékku boo yëpp xam nañ dañu ko jékku waaye nag làmb moo baaxoo noonu parce que comme da ngay uuti sa morom uuti. comme nax naxante la nag a ah, léeg-léeg da ngay naxe léeg-léeg ñu nax la su combat boobu it noonu la fa demee rek dañu dañu cee dañu cee nax daan ñu nax bi mais est-ce que tey moom jox ko avance. Ah. jox Balla avance jox Tafa avance. Mhm. est moom war na war na mën a xaw a bàyyindiku bañ kay ba benn adversaire di ko di ko jekk si. si loolu si loolu day am gis nga nit nañ la jox avance jox ko avance yow kee mu ëpp la mu la cachet fuuf ah. te nga ñëw nga jàpp sëriñ nga nga jàpp ko sëriñ nga daan ko loolu day am ci làmb parce que làmb euh, li nu gën a sonal mooy sëriñ yi dañoo bari mais sëriñu làmb moo bariwul sëriñu làmb bariwuñu parce que boo demee am na ñoo xam ne nii mun lañ laa jox ay muslukaay ay bay rek yooyu yëpp nga sotte ko mm-hmm. am bayre mhm. mais nag nit la ko nit mbër la koy téye lay mhm. téye nit boo ay cëram du dog mhm. loolu moo loolu moo xaw a jafe moo jafe waaw et dafa am ci làmb li ci gën a li ci gën a am importance mooy sarax yi ñu lay wax nii sarax waaw parce que am na sëriñ yooyu boo xam ne dinañu gis sarax bi xam sarax bi lan la xam ñaata la xam koo koy jox. loolu moo jëm solo mais am na ñun nag gis sarax bi mais duñu xam lan ñaata la wala lan la wala koo koy jox su fekkee nag da nga ci euh, sarax bi ni nga war a saraxe wala ak lii ak sarax bi lii la wala ki nga koy jox loolu suufa da da day arrivé ci ci sëriñ si waaw. mais ñu bari di wax ne Tapha bu duggee ci géew bi. Mhm. day xaw a absenté. Mhm. non am di du du duwul absenté. mais dafay fekk euh, làmb suñ jàppee du question ne dañ lay yeew ba doo mën a def déedéet hmm. loolu bëriwul lu muy am ci làmb bëriwul loolu muy am ci làmb mais souvent bu bu ko séri maanaam dañ koy jàpp noonu rek bu ñu ko jàppee hmm. loolu ñu waral ñu ne day day affolé parce que am di mag la ci làmb bu toll nii mag la ci làmb mais nag comme noonu mu la ko waxee rek gars yi euh, jàppale bi day bari ba nga xam ne nii jàppale bi dina am am doole ba nga xam ne nii rek ki ngay dajeel day am lu bari ci yow day am lu bari ci yow mais li ma xam mooy am di néew ma amut sëriñ de waaye ku ko daan ku ne sa xaalis dina jeex sa kase bi ñu la fay di ko wut di di nga wut ebleb leneen dolli ci. waaw soo ko daanee. man xam naa ne yow doo dese xaalis si sa sa combat boobu. doo dese xaalis déedéet. Mhm. ok léegi. Mhm. am ngeen combat de Boy Niang. waaw waaw am nañu combat. combat bu neex sax. combat bu neex. mooy ndax si saison bi. ah incha allahu rabi. lu koy neexal. ah lan lu koy neexal. dañuy bëre bu soobee yàlla. Mhm. dinañu xeex nañu bëre. Mhm. te bu soobee suñu borom. Mhm. dinañu ko daan ci kattanu yàlla. ngeen ko daan. waaw waaw incha allahu rabbi. mais foo ko daan. su ma ko teg. mooy man ci li may liggéey. may liggéey. foofu laa ko teg. waaw. ah boo ñaatee parce que xam naa ne daquma ma doole daquma xeex. te it gënuma bëgg gën ko bëgg. déedéet parce que ñun da maanaam lu ñuy wax loolu du tolof tolof yàlla dafay wax ni maanaam soo bëggee lii da ngay jafe da ngay traversé yi coono yii soo ko dem jot ca la nga dal mais du question yi tolof tolof déedéet tolof tolof yàlla yàlla musal ñëpp waaw Tapha ñu bëri wax na dafa am fu mu nekkoon. Uh-huh. dafa am benn cercle bu mu nekkoon. waaw xaw a génn gi cercle boobu xaw uh-huh. gi cercle boobu. waaw léegi ñu ne combat bi combat capital la. Uh-huh. pour mu demaat ci cercle mu demaat fi mu fi mu nekkoon noonu. combat bi combat capital la combat bi nan la ci war a ñëwee. waaw combat bi Tapha fi mu nekkoon ci kaw ba léegi mi ngi foofu ndax ku bëreeg Balla Gaye bëreeg Bombardier defe naa ne mënatoo wàcc ba ci booy bere ci petite catégorie yi mënatu la nekk déedéet fii mu ne nii ñii bëre ak moom ñoom booy ñëwee ñoom ñiy bëre ak ñoom dañuy rêvé pour bëre ak ñamu bëreel parce que d'accord bala ngay de daan mu daan Bombardier kon xam nga ne kon koo ko koy xool nga xam ne booy jógee ca roi de Sane da ngay bëgg a dem dali kon xam nga ne kon kooku du ku ndaw su nekkoon ku ndaw la ñoo ñii duñu ko jël duñu ko laaj mais it li tax ñu jël am na lu ñu yaakaar ba tax ñu jël ko. waaw moom am na lu mu yaakaar parce que boo ña yaakaar na dara parce que xëy na Tafaadine daan na Saaka moom daan na Saaka Joor ah daan na guy gi. daan guy ah, gi Lac de Guiers daan na Tapha daan na booy Niang xëy na ñoom ci yoon boobu la ñu jaar pour sukkandiku pour war a mën a daje ak ñun. la ñu sukkandiku. waaw te su même su daanoon su su daanoon su daanoon Lac de itam dana bere ak dina bere ak Tapha Tine su ko daanoon dina bere ak Tapha Tine ah yàlla de mooy borom ndam mooy borom lépp. mais lima ma li ma yaakaar te gëm ko ah incha allahu rabi dinañ koy daan bu soobee yàlla incha allah waaw. mais ñu ne boo ñaan ci géew bi. waaw. maanaam dafa xaw a ëpp maanaam caay-caay géew dafa xaw ëpp tafaatin tuuti. Hmm? gars yi ñu ne si biir géew bi. waaw boo ñaan dafa xam am caay-caayu caay bu nekk si moom boo nga xamante ni da ko xaw a ëppale tafaatin. waaw xam nga. nit ki mën nga ko op caay caay ci làmb mais taxul nga mën ko ci làmb déedéet parce que tey dinaa la wax beneen hmm? pourtant ki daqam ki ki mu bëreen kooku daan ko ah? moo gën a naqaree daan ci mbëri waaw te boo ko seetloo dina man damay wax ne daan Balla Gaye bi daq bëre Lac de Guiers moo gën a yomb nga daan Lac daan boo ñaax boo ñaax moo gën a yomb daan moo gën a daan moo gën a yomb daan Lac moo gën a daan Lac de ko seetloo maanaam ñi nekk si kaw ñi mu mos sa bere rek ñu bëre ñëpp amut ku ñu ci newut kaay bëre ak tafaatin nga nga nga delloo avance bi. parce que xam nañu ne xëy na dafa am lu mu war a traversé rafet nañu njor ci ne càkk boobu traversé na ko léegi nag càkk-càkk boobu boo ko traversé yow jàkkaarloo gaay gaay yi itam seen xel du dal ci jël sa combat boo gisee combat yi yii yëpp jëlu ko loolu moo ko indi parce que gaay yi yaakaar ne jafe-jafe boobu noonu traversé na ko léegi mu ngi ñëw jàkkaarloog ñoom. am na ci mbër yoo xam ne moom ñoom dañ koy wax sax VIP bi bi ñu ko ko waxee dala ne tawaadin na ma ko naxewoon bu daan ko loolu mënatuma ko mënatuma ko nax noonu bu daan ko kon xam nga kooku boo ko bëggee boo ko bëggee teg revanche moom tawaadin ah dina xaw a jafe tuuti tuuti mais ñu bari wax léegi na tamit Tapha Tine Ama daf ko yee ñu bari wax ñenn ñi Tapha Tine Ama Baldé daf ko yee ci jël ko daanoon waaw loolu sa xalaat ci loolu waaw loolu lu war a nekk la parce que yeewoon na ci kooku noonu parce que mën na ne su fekkee dafa doon nelaw yeewu na parce que dafa am defet yoo xam ne soo ko jëlee moo lay def mbër tabaatin defet boobu yóbbu na ko fu sori mais Ama Baldé loolu victoire boobu moo ko def mbër. waaw mu gëm ne ba mu daanee ci la gëm na mun naa daje ji ci kaw. mais tabaatin parce que Ama Baldé daan na ko d'accord na waaye yàqalu ko lu bari ndax làmb moo tëddee noonu da ngay da ngay berek say morom nga daan leen nga ñëw daan say mag tawatin boo ko seetloo ci làmb yi ñi ñi mu ci ñi mu ci neew na de boo ko seetloo bala ngay moo ci moo ci ay moo ci moromam waaw dernier mot booy wax Boy Niang ak waa kër Boy Niang yëpp. boo amoon dernier mot boo leen di wax lan lay doon. waaw euh, mhm. yal na yàlla defal leen jàmm. Mhm. defal leen fekke ak tal. Mhm. boobu bés ba. parce que bon. ñoom xam nañu ma man xam naa leen ndax déggol parce que ñun ñoo defandoo carrière ñoo jiitlante xamante nañu. deewal xam naa ko bu baax xam na ma bu baax parce que mbapat yeeg. ok euh, dama def benn émission bi. tournoi yeeg fu ne ñu doon dañu daan daje ak deewal hmm. xam naa ko am na lu mu xam ci man am na lu mu xam ci moom. estafu booy ñaa man am na ñu xam naa leen ay am na ñu xam nañu moom waaw. am ah. ok parce que il faut booy ñaa dina changer li muy bëree. mu sànq li muy bëri. oui parce que dafay am catégorie goo xëy ne soo ci accès foog mu changé lu muy bëri mu mun na ñàkk mu changé lu muy bëri te loolu man xam naa ne calculé naa ko. calculé mu foog mu changé bëri bu bu buy naree bëri Tapha Tine dina changé li muy bëree mun na ñàkk. te yéen nga préparé ci loolu. yàgg na man maa koy préparé. mais moom nag ba bëri ko préparé fii bu ñu indi leneen. loolu du jaaxaluma Boy Niang wax dëgg yàlla jaaxaluma parce que làmb soo ñamee défaite ñam victoire lu ci nekk nga xam fu mu la yóbbu xam nga fila defet défaite yóbbu xam nga victoire fu mu la yóbbu kon defe naa ne làmb lu mu miti miti rek may sooraale li nekk si kanam. waaw parce que dama bëgg leneen lu ne ci kanam parce que bu bu neexee suñu borom ah dama koy daan jël jël ñeneen ñi ci kanam. dañuy ci waaw man sa waay man roi des arènes laa soxla. moom la soxla de. kattanu suñu borom moom laa bëgg. parce que Bawol daa war a am roi des arènes Bawol dafa ko war a am ni ko ñëpp amee.